ak contentement bu mag mbokk yi di nuyu réew mi di nuyu bitim réew di leen xamal ni ñu ngi jëm ci bis mag muy bisu le premier janvier di date historique bés boo xamante ni bis bu mag la ci wàllu lamb ñaari mbaanaan ñaari xeexkat ñaari bërekat ñoom ñoo war a daje tey le premier janvier ci arène muy Boy Niang ak Balla Gaye numéro bi tey ñu ngi fii ci open presse Boy Niang Boy Niang ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ñu bàyyi la nga nuyu ak réew mi ak biti réew maa lay nuyu bu baax wala maa ngi nuyu journaliste yi bu baax a baax ñu ngi sant yàlla jul si yonent bi sant suñu ay ñaari waajur ñu ngi nuyu wa kër Cheikhna Cheikh Sadou Abi ñu ngi nuyu waa kër Cheikhna Oudou Mami yëpp di leen déggee bu baax di leen ziar mais di nuyu waa Pikine mention spéciale waa Pikine maa ngi nuyu waa Pikine bu baax a baax a baax a baax di nuyu autorité yi bi teew suñu père Abdoulaye Timbo mi ngi ci yoon bi gis nañu gis nañu jara mi ngi ci yoon bi gis nañu mu teew gis nañu Isaaxa Diop gis nañu autorité Pikine yëpp ñoom Thierno Ndom Ba bu ñu limee dañuy gis nañu autorité Pikine yëpp ak cent bi suñu ay papa ñu ñëw taxawuñu bu baax gis ko suñu frère yu bëri tamit gis nañ taxawaay bi ñu ñëw ak ñu ñëw ñu ñëwul tamit seen xel ak seen xol yëpp mu ngi ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñuy doomu Pikine yëpp di leen bëgg bu baax a di kontaan di nuyu journaliste di leen wax masa coono bi ngeen fi daj yëpp incha allah. boo ñu lay laaj benn ba dugg ci biir stade Alassane Diouf nga gis stade bi clôturé Pikine yëpp sa ginnaaw loolu ba mu gisee ba ñu ngi nga am. waaw dañuy sant yàlla bu rek parce man doomu Pikine laa ñu teew tamit ay doomu Pikine lañu. te xam nañu ñoom bu baax Boy Niang parce que mooy commencé sama carrière ba léegi fi laa commencé fi laa defee lépp lu ma am ci làmb fi laa ko amee donc xam nañ bu baax xam nañ les grands rendez-vous bu nga tegee sama loxo damay def fulaak fay ak jom joxe sama bakkan incha allahu rabbi mais dafa mel ni grand ni vous boobu mos a am muy Tapha Tine muy Lac de Guiers grand rendez-vous bi moo ci gën ñoom parce que dañ ko ci communication bi ci préparation bi ci lépp dañ ko la bés boo gis ak bés day waaw am na yi bi jaaroon waaw bés boo gis bés lay waaw. te wax baaxul daal wax baaxul waaw waaj nañ de. Hmm. waaw waaj nañ bu baax a baax a baax. wax baaxul te combat bi ñëw bu baax comme li ma waxoon rek waa ji daf ñuy jox bakkanam war mu jël suñu bakkan incha rabi waaw suñu papa Abdoulaye Timbo monsieur le maire de la ville Abdoulaye Timbo suñu papa suñu xarit maa ngi lay nuyu bu baax di remercier kontaan nañu sa présence. incha allah kontaan nañu ci présence autorité Pikine yëpp. vraiment on est fiers de vous merci beaucoup. monsieur le maire Abdoulaye Timbo. le premier magistrat bu ñu xaar quoi. Ah. Lamine waaw léegi xaar boo ñaa boo ñaa pare. boo ñaa ñëwal waaw. joxuma dugal ko après. xam nga Abdoulaye Timbo bu leen fàtte ni il est le premier magistrat de la kon bu booy ñaa amee combat tey mu teew il faut ñu jox ko micro mu dalal rakam dugal ko. kon monsieur le maire ñoo ngi maa ngi nuyu waa Bidal ci nuyoo bi déggoon li nga xam ne mooy Baye Boy waaye di nuyu champion Pikine yëpp tey ji Boy Niang di waajal combat bu rëy waaye taxawaayu Pikine rafet na kon la jeunesse de Pikine yëpp maa ngi leen di féliciter ci ni ñuy taxawee ci ni ñu mànkoo doon benn ànd ak seeni incha allahu rabbi ñuy ñaan yàlla rek yàlla defal ñu ndam le premier janvier ñu gàddu ndam li indi ko fii ci Pikine Pikine yëpp feete ko te incha yàlla dina ko def boo ñaan félicitation encore ndam ci kaw ci kanam incha allah bu jeexee rek jeex na nag yaa koy wax boo ñaan bu jeexee rek jeex na incha allah yàlla yàlla may ndam. bëri kanam est-ce que pare na pour attaquer Balla Gaye waaw da nga ne ki may dajeel ndaanaan la waaw ndaanaan bu dofee ndaanaan na koy faj ndaanaan bu dofee ndaanaan na koy faj mbër bu dee mbër koy daan amul benn problème Balla xam na ne am na adversaire waaw am na am na booy bu décidé bilaay walaay am na booy bu décidé bilaay walaay dañuy jëflante de dañuy jëflante bu baax a baax incha allah rabbi. Boy Niang day dem wala day taxaw. lépp laay def. lu may def nekkul yow laa koy wax nekkul presse bi laa koy wax loolu sama affaire bopp la ko nga mais lépp laay def nga xam ni moom lu mu indi fekk ko lu mu indiwul mi ngi fi incha allah rabbi. engagement ak détermination bi nga xam ne ba ni mu ci Boy Niang dafa engagé wu ànd ndax jour si danañ gis Boy Niang doxal loola ci biir géew. incha allah rabbi wala détermination nekkul kenn moo ko dugal ci man li ngay wax noon naan nga ko gis ci man ba combat bi ba léegi. nekkul kenn moo ko dugal ci man loolu ma yëfu bopp la. boo ñaax sama lenn sama yëfu hmm. la. lu tax loolu bu ñu nekkee ci géew bi maag moom kese la kenn raxul yàlla xam na ne. boo ñaax wax sa borom duma. waaw bu ma jekkoo bu ma mooy de man bu ma ko jekkoo du ma ko mooy. yàlla xam na sa noo amul en noo amul en. aywa dama. waaw comme ni nga ko waxee amul en. yaa ngi dégg. amul en lépp laamu du weesu làmb waaw waaye boo gisee wax loolu mooy moom lu mu foog amul de. li mu foog. combat la ñu amul bu baax a baax booy waaj na bu baax a baax incha allah te nañ laare maa moom nañ laare muñ laare pare moom dina xam kan mooy booy ñaa incha allah temps yi groupe bi bëri ci ci combat bi booy ñaa dafa blessé wala kay dafa blessé ba démb ngeen waroon def ñu gis sa adversaire yow yow gisuñu la xelu ñi gën a gën a gën a jaxasoo moo war a sa sa ñàkk a teew sa staff yëpp teew waaw amaa loolu damay damay dara sama xelu supporter rek maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax dëgg dëgg dara jotuma maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi sama di liggéey ak sumay nekk ci li ma war a nekk comme ni ñu koy waxee face à bi nag li may njëkk a mooy damay njëkka a jégalu du Lamb jégalu promoteur jégalu ñëpp parce que ku xam booy ñaa xam ne ku am respect ci promoteur la ku am respect ci doomu aadama la ku respecté contrat la waaye dama génnoon moom woo naa promoteur bi dégg naa ak ma sama gars yi ma yabal leen ñu teel a jiitu pour ma gaawoon du ñëw yegg si balaa ma yegg si dégg naa sama adversaire ci la ñu woo ne ma quitté na ma garaaw kon baa ñu ñibbi loolu rek moo tax erreur rek parce que dañoo génnoon ñu nekkoon ci yoon ku xam boo ñaa xam ne ku respecté contrat la mosuñoo def loo xam ne waruñu ko def comprendre nga fu ñu woo rek face à teew parce que man ak adversaire bi ñu def yëpp ay détails comprendre maa ngi jégalu di jégalu axlu làmb di leen wax ni boo ñaa ku respecté contrat dama nekkoon ci yoon rek moo tax. sa ñàkk a teew tax na mu énergie démb ba ne la fa am yëpp mooy moo koy def mooy xeex mooy mooy bëre mooy duma mooy daal. waaw loolu waxum boppam la rek. waaw bu énervé wala mu ñàkk énervé comme li ma ko waxoon rek moom Balla bu amee lu mu guuxal booy ñaa jarul yàkkamti arbitre dafay sifflé génn suñu diggante man moom ñu jëflante la ma guuxal ko wane foofu man li ma ko guuxal ma wane ko foofu jarul wax ju bari comme naa mbele mbele coow la comme naan nga moom bu amee lu ma guuxal wala bu amee lu mu mer ñaa wala man dama man moom benn histoire boo xam ne histoire ranki bu yàgg dañuy tëj ñu sifflé man ak moom ñu jàkkaarloo ñu jëflante comme lan nañ xam kan mooy comme incha allahu rabbi. boo ñaa ñu gis boo ñaa ñu gis signature bu njëkk bi mu mel ni Balla daf la tànte benn pièce boo xamante ni daf ci loo xamante ni euh, daf la daf la wax loo deuxième signature bi nga ñëw réservé lan moo waral dellu ginnaaw bi. non non ah, non non amul dellu ginnaaw amul dellu ginnaaw. dellu ginnaaw du amul fii. lamb la yaa ngi la Lamine yaa ngi dégg yaa ngi dégg Baye la amul dellu ginnaaw ci wax làmb communication la làmb jëf la comme naan li may communiquer ak li may jëf loolu man la concerne loolu du mbiru boppam le fait que ni may bëree wala ni may doxalee wala ni may préparer wala nan laa nat toujours ba loolu nekkul benn mbindeef moo ma koy wax loolu su ma yëfu bopp la ak sama staff comprendre nga incha allah non amul ragal amul ragal pare nañ bu baax a baax mooy tënk rek waaj nan bu baax gars yi ah waaj naa bu baax a baax te dimanche soreetul ah bala bu fekkee moo mën wala moo ëpp doole arbitre dina suuf la gën suñu diggante dégg nga léegi xoolal waaw loolu waxu boppam la loolu waxu boppam la comme li may wax yaa ngi dégg Fadel loolu waxu boppam la yaa ngi dégg dañ ko dëpp micro mu wax waxu boppam loolu affaire boppam la waaye dama la bëgg a waxal déglul ma ñëw dama la bëgg a tënkal ma ni la man Boy Niang doo Pikine waaj naa combat bu baax a baax xam nga dégg nga wax déggoo ma waa ñaa bu baax a baax a baax te moom bu arbitre soufflé man moom ñu sekki géew moom ni frère am ni mu xamee woon kan mooy moom dina xam kan mooy Boy Niang di leen jëflante bu baax a baax baax teg bakkan comprendre nga incha maa yëri mooy sa mi ci Ndiob. kenn du yow yaay Boy Niang maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw waaw di la laaj question ma lay laaj mooy par rapport ak combat bi parce que seen premier jàkkaarloo Sorano kenn da nga sëkkatal Balla Gaye sëkkatal bu doy waar yaa ngi dégg ba jox ko temps maanaam loo xam ne moom moo ko daan wax une minute boo ñëwul ma ñëw nga jox ko temps bu mel noonu ñu seetlu ne dernier signature bi ngeen def wala ñetteel bi ngeen defoon nga dégg ñere ci EDK Pikine bi da nga mel ni da ne combat bi yow léegi dootoo sax def loolu li nga maanaam yow nante nga da ngay cons léegi combat bi est-ce que da nga jóge ca une minute ya bëgg bi jàpp na sa adversaire amul entraînement bu toll noonu wala non loolu sax doo dégg ci biir wax mu jox ma combat bi mu ne mu may xale na def lépp ma ne comme maay xale kay dafa war a métti comme yaa comme man maay xale combat bi dafa war a métti dañoo war a bëre 15 ba 20 minutes yoo xam dañuy xeex di bëre di nàcc di dem ardo di ñëw bu ko defee bu ko defee nañ xam déglu ma ñëw bu ko defee nañ xam kat mooy xale ak kat mooy mag loolu moom bu yow mu wàcc ko dañuy xeex di bëre di gaañ di dem ñëw loolu moom day soof combat bi dafay métti parce que yokkul combat bu ñuy saasaaxee ay rëpp ku nekk dem ñibbi loolu dafa yomb combat premier janvier la day métti day saf sap maa ngi moom histoire bi dafa gudd yaa ngi sib déglu ma ñëw histoire bi dafa gudd yaa ngi sib waaw sant yàlla yàlla mooy lépp waaye foofu ñu jëflante incha allah maa ngi sant ñëpp nag gars yi gars maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. muy drapeau équipe nationale moo doon génn wala équipe rek en général ñoo doon génn ñu jox leen drapeau. day ni nga ko waxee rek loolu mi ci kontaan rek dafay ko may waajal bis di génn. Pikine yàgg na maa jox drapeau mais bii dafa symbolique rek ñu def ko mais yàgg naa génn di représenté Pikine fu mu doon di ñëw di teg sama bakkat comme daanaka mais bii ñoom dañ ko boole def ko lu bu naa jox ma drapeau comme ni ñu koy Ama Baldé sama frère comme ni ñu koy joxee Moussen comme ni ñu koy joxee Sokh ak Boy Mbër yëpp ñi am combat ñu leen ñaan moom dafa leen ndam ñi amul combat ñu naan moom dafa leen combat ñi daan ñu leen di félicité comme daanaka comme ni ñu koy waxee rek dafa nekk lu symbolique rek mais man fu may dem Pikine daay da besoin mm. Pikine moo nekk sama deret comprendre nga loolu amul benn problème maa ngi sant ñëpp jërëjëf di masawu ñëpp képp koo xam ne ñëw nga fi taj si coono maa ngi lay masawu a baax di ñaan suñu boom defal ñu jàmm may ñu tan ñu ñëpp ñu fekk bés bi le premier janvier kenn bañ a gaañu yaa ngi moom mi mbër mi sama adversaire danga koy ñaanal jàmm ak ñu mu àndal yaa ngi dégg ñu xam ne sport bi fair play bokk nday bokk baay Pikine géej waaye maa ngi laati loolu amul xeex amul amul sànni xeex amul yóbbu jam stade ku nekk rek na nga ngemb nga wóoru ko nga bàyyi ko mu si biir géew bi mu jëflanteeg waa ji ba mu daan nga li nga am ko nga wax ko waaw bu jeexee jeex maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mais maa ngi sant maa ngi nuyu maa ngi nuyu maa ngi nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi maa ngi nuyu waa kër Cheikh na Wuldu Maamin maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak képp koo xamante ni mu ngi jàppale di ma ñaanal bu baax a baax mobilisation bi jarul wax comme ni nga wax ñun dañuy njaab rek dugg yaa ngi gën a xam ni fi ñëw gis leen fii ñu feesal fi dal ñoo ñëpp jàppal ni dañuy njaab dugg comme naan nga mais ci jàmm ak salaam laa wootee mm-hmm. non violence jàmm ak salaam waaw ñiy jëfante ak ñiy xeex maa ngi moom la incha allah ku mën sa morom duma ku jekk sa morom yaa gën a xam bu jeexee jeex na jaajëf